الحمد لله رب العالمين وصلى المولى وسلم على نبيه محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين ورضا المولى عن جميع مشايخنا وعن أولياء الله في السالفين والخالفين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إنك على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ki julli di mbokki taalibe yi ñu ko ci seen seen bii nga xam ne mooy Ibrahima TV ci dars bi nga xam ne mooy dégg nga bibliothèque de fayda ñaandaate yéen rek ba tey ci téere bi ñu nekkoon mooy jumul huda bi nga xam ne seriñ bi moolaana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu mu ngi wax nga nii li yonent bi sallallahu alayhi wa ci kaw commission yu darsu bi kon ñu ngi yemoon ci fi mu wax ne alquranul karim ci biir wax yi mu ne mu ngi mel ni nit aadama mel ci biir nekkitee fi maanaam ci biir mbindee fi bayaanu saani continue ne bayaanu saani أن الخلقة كلما كان الأشرف كان صاحبها أكرم عند الملك الحجة السادسة أن معجزته عليه السلام هي القرآن وهي من جنس الحروف والأصوات وهي أعراض غير باقية وسائر معجزات الأنبياء من جنس الأمور الباقية ثم إنه سبحانه جعل mucjizata muhammadin sallallahu alayhi wasallam baqi ila axiri dahr mucjizata saa'iril anbiyaa faaniya munqadiya nee na ginnaaw boo xamee ne alquran gën naa foor mboole mi wax loolu mucjiza la loolu ngëneel la loolu maqaama la boo xam ne yàlla jagleel na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaareelu leeral ba ci mun ne saa yoo xamee ne mbindere dégg saa yoo xamee ne mbindere ci nit saa yu gën a yoo xamee ne gën naay tedd mooy mbindere mooy jikko comportement saa yoo xamee ne gën naay tedd ci nit ki mu ne da gis ne borom itam dafay nekk ku gën a tedd rek ci borom borom jikko jooju borom mbindire boobu borom comportement bu foor bu tedd boobu da ngay gis ne buñ demee ca borom bi mooy gën a foor kon nit ki li nekk ci moom te gën a foor gën a tedd lene ca ñeneen ña loolu daf koy jural moom itam mu gën a foor gën a tedd ñeneen ñi si des te loolu lu xel mën a nangu la mooy bayaanu saani leeral bi mu doon def ci loolu alxujja assaadisa nag ñett juróom-benneelu xujja mooy lay mooy preuve bi ci lim doon wax mooy anna mujisatahu kéemtaan yonent bi alayhi salaam hiya alquran moom moom kéemtaanam la ndaxte bi mu ñëwee yonent bi yàlla mosu yónni rek bu ñëwee yàlla daf koy defal ay kéemtaan yoo xam ne dafay lottuloo aw nitam daf lay niwetam loo duñ ca man dara ca lam doon def su ñu xamee ci ne kii am na ku nekk ci ginnaawam di ko dimbale mooy yàlla subhanahu wa taala waaw yonent am na kéemtaan waaye yonent sol yàlla Muhammad moom kéemtaanam alquran la kéemtaan la boo xam ne mooy kéemtaan gi des bëkk rek mu jëg jamono dégg nga wax ndaxte aw nitam dañ dañ ràññeeku xam ne dañoo fasaaxatu am fasaxatu am balaaxatu mën a wax yéemoon àdduna ci mën a wax ba foogoon ni kenn du mel ni ñoom yàlla indi yonent yi pour mu wan leen nag man kii maaku ko yónni maa gemb dafa indi wax joo xam ne duñ ca man dara dafa wax joo xam ne niñ ko gisee ci dars yi passé yàlla ne leen benn saar rek laa soxla ngeen indi lu ma ci alquran saar yu gën a gàtt sax te wa inaat naan kawsara su ngeen ko mën a indi indi leen ko waaye ba tey mënuñ ko indi kon loolu mooy mujiza li lottuloo nit ñi ci def ko ku dut ab yonent rek doo ko mën a def moo tax mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kiimtaanam mooy alquran alquran jooj nag li tax mu nekk kéemtaan kéemtaanam وهي من جنس الحروف والأصوات وهي أعراض دنجة غير باقية وسائر المعجزات الأنبياء من جنس الأمور الباقية ينتي صلى الله عليه وسلم يالا بيمكو جخي القرآن كيمتان جوجو تي ميم حرفا ميم أصواديا دنجة ميم حرفي ميم صوم ويغا خدمة ونكو جانجي yonent bi yàlla defal na ko mu nekkul loo xam ne moom saa su ne nit ñaa ngi koy jotee nim ñëwee ci borom na nax ni dana zikra saa su nekk alquran benn xaraf nit mën na ko si changé nañ koy jàngee amul kenn ku mën a soppi jànginu alquran ba mu génn ni mu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la te mboolem yonent alayhimu salaam ñoom seen téere ya bam dikkee fu ni nii ci xaalu mbir yam dikkee woon la la nekk parce que min jinsil xuruuf min jinsil aswaat mën a fexe am téere yi ci xaraf yam wàccee mën fexe am téere yi ci son ba mu ñëwee woon loolu def nañ ba mënatuñ koy am dëkk ay soppi ndeg ay jàllar bi ndeg ay yokk ki tax kenn mën a indi téere yooyu mën a assuré dara soppeeku ci dara kon kay su fekkee ne alquran moom am kéemtaan la goo xam ne ni ba tey loolu mooy li des kon beneen kéemtaan yi noonu yàlla defal na ko yonent bi sallallahu may nahu subhanahu wa taala jaala mooy sa Muhammad sallallahu alayhi wasallam baax ila axiri yàlla dafa yonent bi kéemtaanam nekk lu sax amooy alquran ba keroog dégg mujj ak jamono maanaam ba keroog yàlla di laf dindam bii alquran a ngi sax di nekk alquran yoo xam ne ko gardeel bopp moo ko wuttu ba kenn du ca mën a soppi kenn du ci mën a yokk li yonent bi yàlla defal waaye nag wa mu'jizaati asir saayiril anbiya kéemtaani mboolem yonent yi faaniitun dafay jeex mun xadiya dafay dagg lii kay wax dëgg yàlla kéemtaanu yonent bu dafay jeex dafay dagg ba mooy kéemtaanu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy alquran ji nga xam ne mu ngi law fekk jullite ngi am ci kaw suuf koy wëttu di ko mokkal di ko gëstu di ko xam di ko jàng di ko jàng mu ngi indiwaat beneen xujja mooy alxujja assaabi'a juróom-ñaareelu lay ci lim waxoon nee la lim la indi la lay nekk di ko lay benn par benn point par point génn nañ ci juróom-benneelu xujja bi dugg ci juróom-ñaareelu xujja bi itam dafay wone ne nit ki saa yoo xamee ne jël nañ la ña ko jiitu yore buy sax nit simple saa yoo xamee ne benn jeune dajale nañ mboolem lo xamne ay moroomam ñoko yoron yoroon dénk ko ko booleeg moom lam am wax rek force dafay raw ay morom yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa yo xamé ni dañu jël njub ak yonent ya jël seen bax ya ne ko a jëlal lépp nga boole ko ak li nga am lolou itam man nako koo jural mu gën leen loolu lay leeral ne الحجة السابعة أنه تعالى بعدما حكى أحوال الأنبياء عليهم السلام قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم يقتدي فأمر محمدا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بمن قبله يلا سبحانه وتعالى دفن nettali yonent جار جار jaari yonent yi ku ci nekk mu wax la nettali la ay histoire nettali كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ñun yëpp ñu lay nettali ñun yàlla ñu la ci jaar jaaru diw sàngam jaar jaaru diw sàngam na ko gaaye def lam daj loolu lépp lu tax mu ne ngir sa xol saxee ci dëgër dëgam sa xol saxee ci dëgër moo potoxlu ne la dëgam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne soxla ñu defal ko ay conférence ci alquran yàlla jàngal ko ay yonentu lu man ñaar fukki yonent ak juróom ulaasu min rusul ngir xolam dëgëre ci naka nag ab jullit boo xam ne mu ngay dem def gàmmu dajee ko gën a xam yonent bi tuddee ko gàmmu tuddee ko fàttali ko juddum toog kooka di ko nettali jaar jaar yonent kon jullit bi subaa lan la koy jëriñ du ko jëriñ la may xol bu sax xol bu bëgg yonent xol bu topp njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yàlla bi mu waxee yonent ne ko lii yow Muhammad مال نتريل أحوال الأنبياء عليهم السلام مال نتريل سن حالي فأولئك الذين هدى الله نيون لا يالا جندي كن فبهدى ومقتدي نيون لا يالا جندي نيون لا يالا جول نتريل نال سن جار جار كن فبهدى ومقتدي توبل سن جبغ اقتداء موي توب كي جيلي نيون غا غا غا توب أمر محمد صلى الله عليه وسلم يقتدى بمن قبلهم ديغلي نتي مو توب نيكو جيتو هون فإما ay yuqaala annahu kaana maamuran bil iqtidaa benn ñu wax rek ne yonent yi dañ ko digal pour mu roy yonent yi fi usul ci cosaani diine yi nga xam ne ñoom ñu nga ca bu ñu usul mooy cosaani diine yi nga xam ne bokkul ak détails yi ci cosaani diine yi nga xam ne yonent yëpp ñoo ko bokk lu mel ni tawxid lu mel ni imaanu billah lu mel ni ihsaan lu mel ni nangam lu mel ni nangam dégg addiin huwa wa huwa jaaisun maanaam usulu diin ixtidaa fi usulu diin roy leen ci cosaan yi dem wa huwa jaais loolu dagan na li annahu taqlidun boobaa loolu dafay nekk roy rek aw fi furuu diine wala sax ñu ne ci jotaayi diin yi la ay banqaas yi nga xam diine wax yow xayru jaay mu ne loolu nag moom du dagan rek la mu ne cosaanu diine yi wala dégg nga détail su fekkee cosaani la mu ne loolu mën na nekk mooy mën a tuddal waaye su fekkee ne euh, foro mooy détails yi loolu du mën a ne parce yi bu ci nekk nañ ko tëralee bokkul li anna ka kat tërali moom yonent bi na saxa saay la sharia moom sharia bi moo folli mboolem sharia yi moo tax du mën a nekk ci détail waaye ci aslu diin kon yow mi digg ñu ne yàlla ne yonent bi royal yonent yow lay leeralal fii pour nga bañ a gëlëm mu ne saa yu ñu la waxee ni yonent bi yàlla ne na ko royal yonent bi moo ci saani diina ma di ne diina jëne ci loolu lañ ko fond yooyu la wax waaye mu ne waxut détails na gaa yi doon jullee waxut ko na gaa yi doon joxe asaka nañ doon saraxee waxut ko na yeneen yonent yi doon doon attee waxut ko waaye ci cosaani diine la wax moo tax mu ne la yonent bi yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam diinaam ji moo fooli mboolem diine walam yabqa illa an yakuna muraad maxaasin al axlaaq kon ndegam diine ji moo diine am jee folli diine yi kon la mu wax ne fa bi hudaahum du mën a nekk lu dul maxaasin lañ ca namu fal muraadu maxaasin al axlaaq mooy jikko yu rafet ya ka annahu subhaanahu wa dafa mel ni yàlla subhaanahu wa taala qaala daf na yonent bi inna actaynaaka in actaynaaka ala ahwaalihim ñun de ñoo la jox seen xaal wa seerihim seen doxalin faxtar tànnal anta yow min ha ci yooya aj dara yi ci gën a rafet yi ci gën a ji yi ci gën gën a jekk wax sanaa yi ci gën a rafet mais ni yàlla ko daal mu tànnal leen seen xaal yëpp teg nañ ko sa loxo tànnal bu ci gën a li la ci gën a neex tànnal la ci gën a rafet fekkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax ne ko ne mu ne lim na ko royal ci ñoom dafa mel def na ko inna aatinaaka ala axwaali ñun ñoo la jox seen xaali wa sayrihim seen doxalin faxtar tànnal anta yow muhammad min ha ci yooyu ajjar waxsan ajjaraha waxsan ay ci gën a xëy te gën a rafet gën a baax bokkul muxtadin bii nekkal di roy ci ñoom ci yooyu fi kulliha ci mboole seen mu ne sufi fa mel ni lii la ko yàlla wax wa hada yaqtadi annahu ijtamaa fihi min alqisaat kon kon loolu dafay waral ne kon dajee na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam minal xisaal si ay jikko almarde yoo yu rafet yoo xam ne maakaana mutafarriqan fii ya xam ne ñoom ñoo ko séddoo woon mu tàqale ko woon ci ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ne jikko yëpp kon dajale na ko mbokk mi yaa ngi seetlu wax bi royloo na leen ko mu ne roy ga du ci cosaan yi du ci ci détail waaye ci cosaanu diina la kon ba mu leen royee ku nekk mu jël la gën ci yow ku nekk mu jël ci yow ci jikko ju rafet ci rafetal ci nangam la ca gën mu dajale ko mu ne kon loolu li tekki mooy dajale na mboolem jikko yi nga xam ne dañ koo gërëm yu rafet yi kon nag maakaana mu tafar dégg nga kon nag li war mooy fooja ba yakuna afdal minhum moo loolu loolu moo tax li war mooy mu gën leen liit beneen lay ci ne yonent bi moo gën bi ko yàlla royloo yonent yi jox ko seeni baax baax toppaloo ko ko mu jël yëpp dajale ko lu nekk mu jël la ci gën ku nekk mu jël la gën ci yow li gën ci sa diina li gën ci sa doxalin mu ne loolu itam buñ ko xoolee may na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ne moo leen gën parce que dajale na si li gënoon ci ñoom boole ko li li mu yore woon kon kay mu ne loolu firnde la ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën saa ir xujja yooyu mooy yi nga xam ne moom lañ waxoon ne dinañ ko indi tey mu nekk ay firnde yoo xam ne saxal la li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla may na ko ngënal ci kaw yonent yi insha allah beneen dimanche dinañu àndaat ak yéen wa salli allahumma wa sallim ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi al abrar